dara da da umma dara yeah dara man rasuma dara dara fii ba le 31 décembre ànd leen ak king cosmétique ci gaam yi nga xamante ni dafa nekk en promo gaam weextal bi ñu doon jaayee 60 000 léegi ñu ngi koy jaayee 45 000 bu dee gaam bi doon jar 35 000 léegi ñu ngi koy jaayee 25 000 bu dee diw yi nga xamante ni 25 la doon jar nag léegi 15 000 francs la koy jaay waaw xoolal ma diw yi doon jar 20 000 léegi king cosmétique 10 la koy jaayee bépp zel bu mu doon jaayee 25 la ko doon jaayee léegi 5000 francs la koy jaayee ak King Cosmétique seen 31 dafay neex a neex ba romb ndax neex fekk leen ñu Pikine marché Zing ñoo ngi centre commercial Khadija deuxième étage cantine numéro 71 wala ñu ci 77 474 31 10 77 474 31 10 mbaa ngeen woon ci 76 699 99 62 76 699 99 62 ak King Cosmétique sa décembre dafay neex.